ndax maam no sama waa ji nga xam ni fa tabaarakallaahu digganteem ak lamin al la ak samedi benn bis duxu ji te cafka la yàpp benn cafka lam jox na ko ñeex mu jël lépp maam jox maam Thierno Birahim jaamal Thierno mu ni bis bi li waral ci bis bi yépp moom la war waaye soo ko boolee cant Serigne Touba tamay dalal ak moom màggal nga xam ne bëggul kenn ku dul Serigne Touba muy maam Thierno mii nga xam ni fa tabaarakallaahu mënul dubbee maam Thierno Birahim daamal jaar muy nit ku baax di nit ku yiiw di nit ku tedd di koo xam ne soo ko fekkee salle de vente kilifa yépp ba ci jéey promoteur dañ toog fu mu toog ni ko bi téléphone sàngam laa bëgg nit nag su la wóoloo yow la su wóolootul yow la te moom ñépp ko wóolu ngir ak mbaaxam ak jubam ak bëgg lu baaxam soo ko fekkee Touba màggal lépp lay rey jëf lee fa tabaarakallaahu jox ko jaami yàlla yi muy borom téléphone yu baax muy maam Thierno ñu ngi ñaan yàlla guddal sa fan enveloppe bi nee na comme si ni ñu ko waxee rek anniversaire de grossesse si la nekk nee na lii nag tàmbale ko ko nga xam ni lépp loo nekkat yi nga ca ndax moom mu am nag ngërëmal way juróom am ngërëm bokkam mu sàmba àllaar man maay dalal moom màggalal ak mu jot dama koy fekk këram ñun toog màggal mag moom keroog bi ko maamul loo woowee ñu ànd ñu ànd maamul maamul ne ko Moustapha Moustapha damaa bëggal Lamine damaa bëggoon Lamine oto damaa bëggal Lamine oto damaa bëggal Lamine Seck oto mu ne ko mu ne Mamoun loo mu ne Mamoun Lo yow waxal rek waxal rek li nga bëgg li nga bëgg ma defal ko Lamine noo ko bëggee noo ko bëggee ma defal ko Lamine ba keroog yàlla dogal ba keroog yàlla dogal loola jaare ci ci noona ci noona mu daal ñu fexe ba am ko ñu fexe ba am ko kon nag kon nag sant naa ko sant naa ko baara baara baara automobile baara automobile day nit ku baax day nit ku baax sama xarit la sama xarit la waaye Adja Bébé Rose waaye Adja Bébé Rose man ak yow man ak yow teraanga yi ngay jëf ci ñun daa bari lool de nee na Bébé Rose mii moom day nit ku baax sëtu sëñ Mor Jaara la ay ca ñoo ngi ci soxna bébé Rose mu baax mi nee na dangay nit ku baax de nee na yow boo jógee tukki boo fa demee nee na parfum yi gën a neex nee na bébé da koy génne daan ñu koy jox carax yu gën a cher carax yu gën a cher te gën a jekk nga yëkkati ko jox ñu ko bis bii nee na mbubu yi ñu ci jox ñaw nañ lépp. taabee xat rek ba soluñu ko ajaa kine ñang ajaa kine ñang yaa ko wax léegi yaa ko wax léegi démb moo toggaañ yi démb moo toggaañ yi indi fi ay si indi fi ay si bañ yiñ fi doon joxe moo ko def lépp kine a ko def ànd ak mbokkam yi di sama xarit di xaritam di sama lépp di sama jigéen sant naa samay mbokk sant naa samay mbokk góor ñi góor ñi ak jigéen ñi ak jigéen ñi aram géy aram géy ak ak ak ak ak ak ak ñi mu àndal. ñëpp sant naa leen ñëpp sant naa leen. Assou Diop Guèye. Assou Diop Guèye. une forte délégation la dem. jóge Touba damaa bëgg a pare ci kàddu damaa a pare man dootuma waxaat ngeen continuer ñoo continuer. waaye nit ñi boo leen woowee waaye nit ñi boo leen waaye xanaa sañ a sant. sañ nga leen a sant. sëñ Xaadim Guèye nii sëñ Xaadim Guèye kokki. xar yi ñu fi gis xar yi ñu fi gis. lépp moo ko jënd joxe ko. sant naa ko gërëm naa ko di sama xarit ñoom ñëpp sant nañ leen ñoom ñëpp sant nañ leen sëriñ Mohamed Samb soldaaru borom Touba sant naa ko sama xol sedd na ci moom bu réer yi daan doy réer yi daaw yi ak déwén doy waaye sant naa ko waaye sant naa ko waaye Cheikh Samba Xaye waaye ah dernier Cheikh Cheikh Samba Xaye tey ma wax loolu garaw nee na man sama taaw bi ma koy tudd Cheikh Samba Xaye yaa ko jox xar barke borom Touba mu yàgg ñoo taxaw nga yàgg ñoo taxaw ngay nit ku baax yàgg ñoo jàppale nit ku baax a ngi nii toog barke sëñ Bamba sant naa ko gërëm naa ko léegi nag mbooloo mi dama bëgg ñëpp toog ndax kii nga xam ne dama bëgg ñëpp dugg ci baas bi toog ndax sëriñ Cissé mu sëriñ Babacar pare bi joxeegul ay teraangaam te joxeegul kàddam léegi nag dafa am kok faaw ñu bàyyi ko xel ci bis bii muy kan di sunu ndey di sunu bàjjan muy soxna baali muntaxaa soxna baali cheikh sooyibu waaye borom fondation soxna baali muntaxaa kenn du yow soxna baali muntaxaa jàmbar ji soxna baali sunu ndey soxna baali sunu bàjjan soxna baali noo ngi lay sant soxna baali bi nga ñëwee ci bis bi daanaka yaa defar bis bi soxna baali yaa gore waaye soxna baali yaa baax soxna baali yaa yiw waaye soxna baali yow mii yaay liggéeyal soxna maam jaara la tulaahi soxna baali sant nanu la soxna baali gërëm nanu la bi nga tàbbee ci bis bi xam nañ ne soxna baali bis bi lépp defaru la waaye sëñ Lamine maa ko wax soxna baali Muntaxa nee na mënuñu koo fay nee na soxna baali li mu def ci ñun daa rëy lool ndax fexe na ba ku nu gis bëgg nu fonk nu jàpp ñu bis bii ba ma ko jàppee soxna baali yaa njëkk a dalal suñu xel bis bii dama ne Lamine dama toog rek lépp naa ko def te noonu la ko defee soxna baali màggal tabaski korité gàmm laylatul xadr lépp lu ñu xewle soxna baali moo ñuy taxaw sunu yaay la sunu sëriñ la ñoo ngi ñaan ci yàlla di ñaan ci sunu borom ci barke baayam yal na yàlla guddal fanam bëgg nañ ci moom sunu xol sotti na guy ndax li def ci ñun dafa rëy tax na bu ñu génnee ñu ne doomi soxna baali léegi ni doy nanu léegi nag dama ne Lamine Cheikh Makhtar jenn kuréel social ca mbub bii ma sol Cheikh Makhtar Diagne moo ma ne maa la koy solal ci bis Serigne Lamine Seck maa ngi koy sant maa ngi koy gërëm léegi léegi toog leen damay jox kàddu gi. bég naa sëñ Habib Diouf sëñ sañ sañ sëñ laat ñoom ñëpp xaaji mënuyoon bég naa jërëjëf. dama bëggoon sëñ Cissé ci yow laa jëm waaye maamu mooy wax ma jox la kàddu gi lu la neex nga def ndax yaa moom bis bi damaa bëgg a jox maamoon bu wax ci turu soxna Baali soo bëggee tamit nee na mën ngaa wax ñu jox la su noppee maamun jël kàddu soxna Baali mun taxaa garawul garawul man damay wax na jël sa wax garawul ku si yaay liggéey ku la gis xam ko wax dafa metti jërëjëf xëm lii sabinatan bi kullil janna min daaratin minna ni yaasal minna ataani yal markabu fii daari minan inda tasin tadxulani daari minan ginnaaw bi nu sante yàlla julli ci sangi sangi seyduna muhammad di sant Serigne Touba tey ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla na fi yàgg te wér di ko ñaanal bépp kilifa diine di ko ñaanal képp soosu daal dox lislaam rek tax kàddu gi mën naa gàtt Serigne Abdou Baaxe Mbàkke noo ngi lay siyaare nuyu Serigne Djily Peuf di yéen ñi nga xam ni yéenay sëriñ Touba fii ci mbooloo mi jox leen seen wàccuwaay kàddu yi ñuy yëkkati yéen seeni kàddu day dugg ci biir ndax buñ ne soxna Baali yéen ñëpp a ci biir la koy sabab mooy wa in tudaaris man ak akbara min ko yuxaawilu saamanan wa tara ka an yoonu mu mursalan li xaaja fas dulóoli laay xaaja moo tax yéen dootu leen nangoo bokk nuyu sunu gan yu tedd yii te bu nu tuddee sëriñ Cissé mii sëriñ Saliou Balla Dior moom day bokk fii ma njëkkee bokkaat fii may mujje ndax yéen a ànd ñëw waaye it moo lay dalal te man moom mii moo tax ma xam la ñu siyaare ko bu baax nuyu Seex Sàmba Xaya sëñ Seexu naa borom jaaro bi ak mboolem ñi ngeen àndal sëñ xaadim mbay jërëjëf sëñ xaadim gay kokki jërëjëf yal na yàlla yàggal taxawaay bis bi nag nee naa ci ñun murit looy làmb gis ci sëñ tubaa ba mu fees dell cat ba cat gisoo ci sexarafaal bu la neexee man ngaa rocc te kii toog diggam ak Cheikh Ibra kenn nit a ci dox Serigne Saliou sëñ Modou Moussa Fall Cheikh Ibra Fall Cheikh Modou Moussa Fall sa baay góor musu koo yàq ku mu xool nga xam ni góor xool na la ku mu jox loxo nuyu la nga xam ni góor yàlla dëgg nuyu na la Cheikh Fall Baye góor sa mag ju baax ja Serigne Modou Aminta Fall Serigne Cheikh Jëmb sëñ am di Xadi Fall nga bokkal Baye yow koo bokkal Baye ku ne garmi la sa maam daa génn ci néegi dammeel ak garmi yi fekki sëñ Tubaa sëñ Tubaa defar ko delloo ko dammeel yi war a mun a ko yaa tax ba Penda Fall ak Gën si rek la Fall gën doomi soxna yi fi daal taal dina juree di ñuy doxe te xam ni seen bàyyi moom booba fedeebur moomagul kanoom ku ko mës a gis xalam ba daawul ñu ñox ñi moom Cheikh Ibrahima Fall sëriñ Siise mii toog nag sëriñ bi moom lañ dara jaale bis bi kon kàddu yi soxna Baali Muntaxa wax mu jëm ci Lamine mënees na la koo seereel dafa wax nii rek sëriñ maam Cheikh Baabu mii sëriñ Jili pëf di soxna Anta Gueye ngi fii toog sëriñ Jibril seexu Seexuna ba ci sëñ Muntaxa Sàmb mii ak Moustapha Seck dafa wax ni rek Lamine Alaaji Seydou nit ku baax la nee na Lamine ku yaru la Lamine ku dal la Lamine ku lewet la Lamine ku neex a jaxasool la dara bu ndëpp nga daal di tëdd ci suuf si ku ñu laal sarabu ndëpp nga daal di ci suuf si kuñ laal sarabu ndëpp nga daal di jóg Mamour li mu wax ci xilaasu saxab rek defar na lépp mag ñi nii lañ doon doxee lii mooy Sénégal Lamine sekk yàlla yàlla guddal soo fan xaaj Lamine yàlla yàlla guddal soo fan maa ngi ñaan ci darajey Serigne Babacar Sy buñ génnee ci programme bii maa ngi ñaan yàlla nga ci doxee ñu dégg la ba faw yàlla nga yegg ba faw yàlla bu la dara gàllankoor ci dara yonent bi sama xol a sedd te Mamour danga maa bégal danga maa bégal seddal sama xol bi ndax man jëluma décision pour wax lenn damaa ñëw pour taataan si xam-xam ñëw xam ne drapeau gañe na waaw Serigne Cissé mu sëñ Babacar Sy Seydou dama koy gàttal dama ni sëñ Bab Malick Sy mii sëriñam moom ki ko def nii mu mel yaa uuf njabootam yaa ko taxaw yaa ko jàpp yaa ko sagal yaa ko teral ah madam Seck laa ilaaha illallaah barke Serigne Touba Mbacké loo nee na yaa ko sagal yow it waaye yaa ko teral yaa ko taxaw yaa bëgg yaa yërëm lii sant sëriñ Saliou la dangay sant kuy sant lii nii def soxna si daal bëgg na yaa ko teral yow it yaa ko sagal yaa ko dimbali yaa taxaw ba nii mu mu mën koo sañcee na ci ay nawleem ñu somp ko bëgg ko sa ndey bëgg ko sa baay bëgg ko jërëjëf madame Seck doxal ah Lamine nee na ndeyam lañ ko tuddee moo ngi toog te ki ma ko tuddee moom mi ko jur moom moom ñoo bokk turandoo moom boo ko takkul woon da ko war a dimbali ndax sama rakk bàyyi ko jur ñu jox ma ko ca booba xamul dara ca booba mënu ko ma dara kon sant nañ ko. sëñ Saaliw fay na ko ko bisam bii tey may ñaan nag ci sëriñ Touba fu mu bëgg a àgg yàlla dafa àgg ak magam yi ak ñi mu bokkal ñëpp di sant nag sama doom yee ji di soxna mbaay man lan ko tuddee ñu fab ko jox ko Lamin mu ne jëkkër ga nag béy ci samay waa woy ci waaye papaam ma nga xam ni moo ne ca ga boot na samay gone mooy bàyyi faalu kër ga lu fa nit nanguwul la soxna baay futti ko na def barke xaadimal Moustapha barke sëñ Laamin mi nga xam ne duma ko kat lu nit bañ ca kër ga soxna mbaay def na ko may ñaan nag ci sëriñ Touba bis bii Lamin am yàlla na ko ay doomam am loolu rek laa ci doon xaaral tuuti cinq minutes toog ok léegi dama bëgg ñëpp toog te déglu ngir jëmmi sëriñ Touba Lamine mii nu wuy si suñu nawle la te du yàq bisu kenn ma bëgg ngir jëmi sëñ Tuubaa nu maase toog te déglu Lamine yàgg nga fee ñëw ci bis yu mel nii ñu tàntal Serigne Touba yow nag fu ñu tàntalee Serigne Touba ñeme nan la cee woo ndax Serigne Cissé boo ko gisee muy dox Tiwaawan la dëkk waaye àndu tëkku dëkk Tiwaawan te ñëpp la amal jàmm nag boo gisee délégation bi mu def bi muy ñëw nga war a xam ni Serigne Cissé ku fonk taalibe Serigne Touba yi la bi ko Lamine tuddee bis bi la woo Serigne Saliou Mbacké mii moom Cheikh Moustapha moom Serigne Balla Dior Balla Dior Baba Ndiémé munu xarit Serigne Mbacké Maram ni ko du ma jiital kenn teg la ci yaay jiite délégation bi yaay formé délégation bi yaay jiitu ma topp sa ginnaaw ak ku ma am ak lu ma am bis bi nag sëriñ Cissé réeré wu jeeg sëriñ Saliou mii ndax xaritam la wëlëreem la wax naa ko démb ni ko sëriñ Cissé ñun waa Touba gépp ameel nan la ak cant ndax taxawu nga nu bu màggal Touba jotee sëriñ Cissé boo ko fekkee Touba da jàpp ni. kon bii suñ mooy borom mboolem ku mën a àndali tamit suñ Cissé bu doon toog fii ba fajar du fi jóg suñ baaxee noonu mi mii tamit.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 طيب عمر الله ذو اتباع مسعد لي منهم السباخ طيب عمر الله صاد لي منهم السباخي maa ngi lay siyaare bu baax te di la sant ci sa taxawaay yaakaar naa ni bis bi mag sëñ Mamoun mi ko jàpp ak Seydou si ak Pape Jamil Sarr ak Cheikh Samba mi toog bi muy xalaat ku ko war a tuddee suñu Seexuna mii la seeti ma ànd ak soxna Bali Muntaxa ak sëñ Maamun mii jëm Daaru Musi mu woo ma téléphone mënu ma sëñ Seexuna laa waxtaanal mu ni ma sëñ sii day sëñ nit ku baax la te lislaam moo ko ñor dama bëgg nga jox ko bis bi li waral bis bi kon man yaakaar naa war naa ci amul kaddu te sëñ Cissé mii bu doon toog fii ba fajar yaakaar naa ne bu ma ko nee toogal du fi jóg ndax bis bi mooy borom ni ma ko waxee gi nag du dara lu dul sant ko moom tatagal ko te sant ñi mu àndal sëñ Mewnu Samb ñu ngi lay seere bu baax. ومسكني لك وديئة النبات ولكن دنياي ما أخرايا ففيهما نزر في الرسايا والمذبلة الجملة من بيتغلق من أبناء السمن وجملة الإخوان والأقارب دينهم في الدين والجانب فليكن إسنا ودبر يا سمان تولني ولا تكني لي أحد وارحم جميع المسلمين أبدا وسليا وسلما سرمدا على محمد رسول لا تلقاو ويا مسنا الخدام على محمد وسيلتي لك وليهم حزن الحدام عندك عندك هيا وزن لتعب عندك لا اله الا الله لا اله إلا لا لا إله إلا لا إله إلا لا al njaga laa ilaha illa la jërëjëf li tax ñu def lii mooy Serigne Cissé man baaxoo ma sax di dem ci programme te joxuñu ma ma jàng xam naa mu ngi soog am barki sëñ Touba waaye damaa nekk Thiès Omaro woo ma téléphone fekk mu ngi ànd ak Serigne Cissé sëñ Cissé ne ma foo nekk nii ma ne ko maa ngi Cees mu ne ma kon bu yeboo nga gaaw loolu nga mu wax ndax dama am jàng yu ñu ma tuddee waaw kay bàyyi ma ñëw ci bis bi lii moo tax ma dikk fi barki Seexul Xadiim waaye su dul koon ak kii yaakaar naa ni mën naa bañ a ñëw sax ci bis bi waaye sëñ Lamine nag day sunu wëllëre di sunu xarit moom itam woo na ma sax téléphone ngir ma ñëw ci bis bi